jëf mbokk internetu Témé TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax baax di ngeen jaar di ngeen jox seen wàccuwaay di ziar ki nga xamante ni mooy kilifa kër gi El Hadj Thierno Moule Sow Hadj El Hadj Thierno Moule Sow le roi de la médecine traditionnel ah le golden boy de la médecine traditionnelle the king of all the kings nga xamante ni médecine traditionnelle saa buñ ko tuddee rek ah xel moom ngay daj saa boo tàppee ci YouTube bi jinne sax wala. médecine traditionnelle El Hadj Thierno Moule Sow ngay ngay gis mu doon loo xamante ni àdduna yëpp nangu nañ ko macha allah xam-xamam ah, ay mayam yi ko yàlla may ah ba tax na tey aujourd'hui dañoo ñëwaat ci benn concept bu bees tax surprise la nag xamee ne El Hadj Thierno Sow ah mbëggeelam ci yonent bi cofeelam ci yonent bi gëm yàllaam ah lépp lu mu am yàlla la ko delloo ak yonent bi mu doon loo xamante ni aussi ñëpp ràññee nañ ko ci ci moom ñu ngi nuyu bu baax soxnaam madame Sow la reine la reine dégageur nu mu ngay Sow di nuyu prince 1 di nuyu prince 2 di nuyu suñu mama ajaratu a Camara ah suñu mama ummi ah ñu leen di jaar bu baax a baax ak njaboot gi yëpp ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu mu ngi mu ngi yëpp nga xamante ni ñoom ñooy taalibe dégageur nu mu ngay Sow bëgg bëgg ko ba mu jeex tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk dégg Cheikh Ndoumbé Guèye Sow ay taalibeem dañoo dee ci moom macha allah bu ñu wax ci moom sax duñu àgg dañuy jooy ah mu doon nga xamante ne vraiment. Mhm. moom moo ko namp nampat ci ci ci nampatal ci ci ñoom. ah def ko ci ñoom aussi ba nga xamante ni benn famille la ñu dañuy xàccandoo dañuy dóorandoo. mbokk yi ñu amaat tamit euh, mbégte bu baax a baax saa su nekk rek bu ñuy dal fii sur la TMS TV di ngeen di jukkil li nga xamante ni mooy information sëriñ bi tey nag dañu ñëw ci benn concept bu bees tàq muy waajal gàmmu Thierno Moule Sow ngeen xam ko ci bëgg yonent bi fa mu jeex tàkk mu ne bépp doom bu ma am yonent bi laa koy tuddee mm. lépp lu ma am yonent bi laa koy delloo mu doon loo xamante ni bu ko nit déggee sax yaramam day daw doonte xamu la loolu nag waxu ko rek yam si daf ko wax di ko jëfe bërki demoo njaay ba mu demee màkk di def umra gis ngeen coono ba mu fa daj gis ngeen la fa xew lépp rek ngir bëgg yonent bi jeex ci moom tàkk tàkk tàkk tàkk seetaan ngeen ay vidéo woom ba mu demee umra buy expliquer ni mu ko dundee mu doon loo xamante ne vraiment lu kéemaane la mu tombe nag ba mu jugee màkka weer wi nga xamante ni ci la yonent bi juddu moom mooy weeru gàmmu la naissance du prophète Muhammad weer wii lañ koy lañ koy mu doon loo xamante ni macha allah ah ah wax dëgg fi àll xéewal la mu ne nag damay gàmmu yàgg na ko bëgg waaye ren la ko yàlla dogal muy première édition dina gàmmu fii ci kër gi ci clinique am Daaru Laahi Djily Mbaye ànd ci ak képp kuy Moulé Moulé moo xam international moo xam national Moulé Moulé foo mun munti nekk ci àdduna mm. El Hadji Cherno saw Sow lay woo ci gàmmam bi mu première édition gàmm bi nag gàmm plus la ndax ki nga xamante ni moom mooy prince Rasoul Rakhim moom dañ ko ci ngénte ngénte waale mu doon loo xamante ni vraiment coïncidence amul mm-hmm. bisu bisu juddu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga amoon doom tuddee ko Seyduna Muhammad nga ni ci bisu euh, juddu Seyduna Muhammad laa koy ngéntewaale <laughs> loolu doy na bëgg yonent bi yamu ca mu ne képp kuy sama taalibe bu ñu ñëwee ci bissi bi di ngeen ma ziyaar dinaa leen ñaanal xam ngeen ziyaaru El Hadji Cheikh Oumar Sow du du yomb gis ngeen ziyaar yi fi jot a jaar mu doon loo xamante ni c'est spectaculaire loo xamante ni vraiment amul fenn macha allah mbokk yi comme ni ngeen ko déggee ma leen koy wax rek te nag du ma wér ci plateau bi dama ci ànd ak euh, son secrétaire son talibé Yatma Mouré Yatma nuyu naa la. waa jaaju maa ngi lay fay di nuyu waa TMS TV yëpp di jiital ci niyo bi le PDG de la TMS TV Alaaji Thierno Moule Sow le roi de la médecine traditionnelle du monde the king of all the king borom baatu baatin bi borom bëtu Allahu Muhammad yi borom samsi ak samaru si buuru jinne di jàmbaaru lislam bi di soldaaru sunu borom bi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ko jox wàccuwaayam lu bëri di ko ñaanal jàmm di nuyu njaboot gi yëpp di si jiital sunu yaay Ajaratu Mariama Kamara di nuyu la princesse la reine Maram saw di nuyu les deux princes Mohamed Rahman Mohamed Rahim macha allah di nuyu soxna ummi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay lu bëri leen ñaanal jàmm bu baax a baax di la nuyu jaaji maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay lu bëri di la ñaanal jàmm di nuyu Aliou di nuyu Fallou waaw di nuyu personnel TMS bi yëpp di leen jaajëfal bu baax a baax incha allah. jërë jëf dégg ngeen ni ko yaat ma waxee mi ngi nuyu ñëpp moom tamit bon ràññi ngeen ko ci kër gi mu doon le secré le secrétaire dégage Thierno Moule Sow ah yaat ma Moule doon taalibe bëgg sëriñ bi ba jeex ci moom tàkk ah yaat ma. Mhm. ñu ngi jëm ci bis bu rëy. waaw muy première édition. gàmmu gàmmu mhm. dégage Thierno Moule Sow. Mhm. coïncidence nag. am na ci. ndax neew nee na day ngénte waale mhm. prince rasul rahim mhm. mu tuddee ko seyduna muhammad sallallahu mhm. mu ne yamu ca dama ciy defaale ziar ziar ku xam El Hadj Thierno Moule Sow xam ko ci bëgg yonent bi dëgg la kon bu ne damay gàmm tàntal yonent bi bisu juddu yonent bi ma feete ko loolu war naa a nekk wallaahi naka ngeen di waajee loolu ak ba nga déggee préparé euh, gàmm nouvelle bi naka macha allah jaaji dañuy santaat yàlla bu baax a baax rek di wax alhamdulilahi rabil alamin waaw macha allah nouvelle bi moom bi ñu ko déggee moom neex nañu trop parce que sëñ bi junjoon na ko waxoon na ko daaw waaw mu ni incha allah déwén danañu commencé gàmmu ci kër gi macha allah te sëñ bi bu gàmmulee yonent bi war na kaa gàmmul ndax sëriñ bi ñëpp xam nañu nan la mel ak yonent bi dafa bëgg yonent bi ba jeex ci moom tàkk sallallahu alayhi wa sallam yonent bi gënal ko léppam nag lépp lu mu am ci kaw suuf yonent bi moom moo ko gënal te yaakaar naa taalibe yi ni ko bëggee sax yonent bi ni mu bëggee yonent bi bëgg googu mu bëgg yonent bi ak cofeel googu mu am ci yonent bi moom la taalibe yi gis ba taalibe yi topp ko dénk seen bopp mhm. macha allah mu nar a doon nag événement bi nga xamante ne événement bu rëy la ndax sëñ bi amul sago si yonent bi loolu moom ñëpp xam nañ ko amul sago ci yonent bi kon tey jii bu demee ba ni day gàmm kon nañu xaar ay surprise waaw nañu xaar ay surprise yu rëy mhm. ba pare aussi tamit mu nar si ngénte doomam muy prince Mouhamad Rasoul Rahim macha allah mhm. moom nga xamante ni yàlla sunu borom da ko defal lu rëy mu judd si weeru koor mhm. waaw ci weeru koor la judd woon euh, weeru koor daaw jeeg waaw sëñ bi ni comme que weeru koor la ah léegi nañ tudd léegi après macha allah léegi ngénte bi nag mu nar boole ak gàmmu gi macha allah mu nar a doon lu rey aussi tamit waaw ci bis bi ba pare prince moomu tamit prince numéro deux ñu tuddee ko yonent bi mhm. naka ngénte aussi tamit ci bés bi nga xamante ni bés boobu la yonent bi judd muy bésu gàmmu kon lool waaw loolu du coïncidence mhm. loolu ay programmation sunu borom la loolu yàlla moom moo koy programme mhm. waaw mu nar doon nag événement bu rëy rëy rëy mule mule yi nag depuis bi ñu déggee loolu noonu ba léegi amatuñ jàmm nag jaaje loolu moom waaw diaspora beeg Sénégal Sénégambie Mauritanie ñëpp instant yi nii takk nañ seen ndigg waaw mm-hmm. yi moom mën nañu waaw on peut s'attendre à mm-hmm. yi moom ñëpp takk nañ seen digg ah, taxaw waaw ah, mi ngi noonu xam naa daal ma ci ah, euh, naa ko naa ko daal incha yaat ma mm. gis ngeen prince euh, Rasoul euh, Rahim moom ba muy juddu dafa tombeek weeru koor mm-hmm. Mm-hmm. sëriñ bi ne comme que weeru koor nga ñu tudd rek mm-hmm. léegi nag ah bisu ngénte bi jot na tabaar fa macha allah El Hadj mu ngay sow ku ko xam rek xam ko ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi ko moom ngaa bëgg ngay wax moom laay roy bu yonent bi def moom laay def. da ngay gis sax bu ni nit tooñee wala dara daan baal naa ko. dëgg la yonent bi noonu nga daan dundee. moom noonu ngay dundee. dëgg la am yërmande aussi. yërmande sëriñ bi man bon des fois je ne comprends boo waxee mu ne la jaaji man sama bopp laa nekk. dëgg la sama liggéey yéen ñëpp jàmm. Mhm. yéen ñëpp jàmm di dimbali ñëpp nag. di dimbali ñëpp. Mhm. kii fii la far xamu kii fee far nitu diine yëpp kilifa diine yëpp élargir na mu weesoo lu xew. danaan mhm. ah dem leen. jaaji doguma la. sëñ bi boo ko bëggee comprendre dangay dem ci histoire yonent bi. boo demee si histoire yonent bi. di nga mën a comprendre sëriñ bi mhm. ndax sëriñ bi maanaam moom dundu yonent bi la yore mhm. boo xoolee yonent bi nu mu daan dundee moom noonu lay dundee waaw ni yonent bi daan dundee moom noonu lay dundee mhm. moom nit lu mu ci xam teral teral doomu aadama la xam waaw def lu baax ah gis nga macha allah ay jikko yu rafet la am macha allah waaw ay jikko yu rafet la am bëgg ñëpp xajoo ak ñëpp macha allah mën a joxe waaw mën a joxe aussi mën a joxe ñam ba pare bëgg ay taalibeem bëgg yàlla man sëñ bi dimension bi mu toll ci sunu borom man loolu noonu daf ma yéem waaw. naka yéen ngeen di dundee. Mhm. Euh, dañuy wax ni sëriñ bu nga jëmalewul ci yàlla. waaw xiruwa ci yonent bi. waaw du sëriñ. waaw mi yow nit sax yow. waaw ni muy dundee. yéen en tant que talibé. waaw comment vous concevez ça. lañ ci am mbégte lañ ci am. Mhm. bànneex lañ ci am mbégte lañ am mbégte lañ ci am yaakaar naa nit boo nekkee nit nga yor sa xel. Mhm. nga ni man sëriñ bii nii kii nii. moom mooy sama wasila hmm. moom laa yaakaar ginnaaw yàlla ak yonent bi hmm. nga xuppi sa ay bët di xool ne waxu la yàlla waxu la bi maanaam ci boppam rek la lay wax yow bu fekkee am nga xel yow maanaam yow foofu boo fa demee benn yoon hmm. dootoo fa dootoo fa demati waaye ñun dañoo ñëw gis ñun gis yàlla ak yonent bi ci sëriñ bi muy dund yàlla di dund yonent bi waaw nekk nitu diine bu mag di jaamu yàlla ba pare lépp lu muy wax taalibe rek bëgg lu baax aussi dee leen jaamu yàlla leen fonk seen ay ñaari waajur waaw waaw surtout ci loolu noonu boo gisee tamit lool noonu moom waxu ko rek yam ci da koy wax ba pare di ko jëfee ñu ñu si teg suñu bët aussi tamit mhm. loolu noonu rek boo amee xel rek loolu lu bari mën nga si jàngat lu bari ci lool noonu muy def noonu waaw miroir la waaw miroir la mhm. waaw dafa doon loo xam ni euh, chaque jour ñëpp dañ koy waxtaane dëgg la sëriñ ñëpp ko yam mhm. waaye ku am sëriñ boo xamante ni ci yàlla la jëme mhm. yonent bi bëgg lu baax liggéeyal jaamu yàlla mhm. bëggal ñëpp da dimbalante fonk leen seen ñaari wayjur sëriñ bépp sëriñ bu ngay wax ni sëriñ ñi rawatina moom mhm. da koy jëfe da koy wax di ko jëfe mais ba mu demee màkk bu ko neexoon mu ne duma daj coono bi mu daj mais bépp coono bu mu daj daf ko daj liggéeyal yàlla ak yonent bi mais aussi wanaal ko taal ñu ko dëgg la taalibe yi xam mhm. ñaanal leen dëgg la et mu doon loo xamante ni vraiment mhm. sacrifice yi muy def rien que pour taalibeem ay taalibeem benn nit bu ñëwee sax dana ut lu mu ko terale dëgg la dana ut lu mu berne benn nit ah. laa wax waaw ah, jàngat la boo xamante ni mhm. dama la loolu leçon la boo gisee muy def noonu maanaam leçon la même yonent bi noonu la daan dundee yonent bi maanaam moom nit da daan ñëw sax dis ko soxlaam moom mu yore li mu li mu yoroon as tuut mu daal di koy jël daal di koy jox kooku moom toog mm-hmm. sëñ bi noonu lay dundee mm-hmm. sëñ bi képp ku ñëw ci kër gi sëñ bi da lay teral moom teraanga la xam waaw teraanga la xam keroog ma toog ba si yàgg rek ma commencé di déglu suñu message yi man ak sëriñ bi message ñi ñuy envoyante mm-hmm. may déglu di déglu déglu mais xam nga la laa si li si lu ci lu ma siy déglu si lu bëri yaat ma ndagam nit ndagam waa kër gi añ nañu waa kër gi añ nañu ah euh, baa ndagam ñëpp a ngi si jàmm ndagam lekk nañu naan nañu lu ci ëpp daal ci sëñ bi lu ñuy waxtaan ci loolu noonu la nga xamante ni kon moom waaw le bien-être te moom mi ngi génnee xaalisam di ko def si kër gi te moom lekku ci naanu ci ñun ñoo ci lekk ñun ñoo ciy naan mhm. waaw lool noonu il faut nga am xool nag pour mën a def lool noonu waaw foog nga mën il faut am xool bu yaatu pour mën a def loolu moom daal boo ko bëggee xam daal xoolal yonent bi rek nu yonent bi daan dundee rek boo xoolee histoire yonent bi rek di nga mën a comprendre sëriñ bi nu muy nu muy dundee moom laa cërul mu nga yàlla na yàlla fay bu baax li ngay def ci réew mi hmm. di ko def ci nit ñi di ko def ci say taalibe ba ay taalibeem sax dañ koy wax la ndax gis nga sëriñ bu nga jariñu àdduna hmm. bu xaar alaaxira mu jariñu ndax ay taalibeem ku ci feebar mu jug taxaw hmm. ku ci am malaan mu jug taxaw loo xewle muy bànneex wala muy naqar mu jug taxaw mu doon euh, benn benn soutien boo xamante ni maanaam daf ngay topp ngay topp waaw jikko yi nga làmbool yépp mënuñu ko wax ci benn émission waajal gàmmu mhm. Thierno Moule Sow lañu wax di ngeen amaat yeneen numéro doyen dina fi ñëw ànd ak mhm. ñeneen yeneen taalibe aussi naa fi ñëwaat ànd ak yeneen taalibe mhm. mu doon koo xamante ne vraiment géej la mënuñoo wax ci mu lépp waaye daal lu ma leen mun a promettre moom mooy gàmmu El Hadj Thierno Moule Sow première édition bii ngénte prince rasul rahim ziar dee mulle mulle mhm. le quinze septembre incha allah ku ko fekkee sa màkk taxaw macha allah ku ko fekkee sa màkk taxaw ndax xam naa li mu nekk ci yonent bi mhm. xam naa li mu li ci yonent bi xam naa lu ko yonent bi jaral mhm. xam naa fu ko yonent bi toll dëgg la boo koy nax sax tu dëgg yonent bi barke yonent bi lu mu yor ci poosam dana ko ne nga am ah, yonent bi kon kooku li muy wax dafa dëggu bu dee nag bu nee day tàntal yonent bi da koy gàmm. première édition. première édition naa mun a ne. waaw ñu ñaan yëpp jàmm. yàlla yóbbu ñu ceeg jàmm. amiin septembre. Mm-hmm. ci clinique am bii di Daaru Laay nekk euh, Yoff Jàmmalaay mm-hmm. cité Djily Mbaye donc jël leen adresse bi dinañu ñëwaat ci yeneen yeneen gën a yaatal. Mm-hmm. Ah, ñëwaat ci bu baax a baax baax am ci ak personnel yëpp ak taalibe mu ngay mu ngay mu ngeen mu ngay ñëw ngeen ñu waxtaanee nu ngeen di waaj a te mu ngeen mu ngay nag xam naa leen. Mhm. mu ngeen mu ngay préparation événement égal seetlu mu ngay sawar. nee naa la gars yi amatuñ jàmm. non waa diaspora ngi ñëw. ñëpp ñëpp dañuy ñëw. Ah! ñëppay teew Mauritanie Gambie tout fépp fu mule mule nekk rek ak soppe ak am di jàmm ñi ci woo ñëpp bàyyiwuñu kenn képp kuy jullit. waaw ah, képp kuy jullit ndax sànq wax nga say biir wax alay Thierno Moule Sow moom alaaj Thierno Moule Sow ñëpp la. ñëpp la vraiment. boo xoolee dañ koy dàkkanteel ñu ni ko jàmbaaru lislaam bi. Mhm. moom mooy jàmbaaru lislaam bi moom mooy soldaaru suñu borom bi. Mhm. waaw moom ñëpp ñu ngi invité ñëpp daal képp kuy julli rek képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay invité ci bés bii nii muy première édition bi. Mhm. gàmmu euh, alaaji Thierno Moule saw ñu koy defee. ba kenn rate waaw képp kuy soppe rek képp kuy am di jàmm képp kuy bëgg alaaji Thierno Moule Sow dina neex dina ala daw mi bu soobee yàlla neex dina sera une chose de grandiose. connaissez El Hadj Cheikh Mourid Sow son amour envers le prophète Mohammed. sallallahu alayhi wa il va fêter sa naissance le jour du Gamou. le septembre dans sa clinique Daarulaay ah à Diamalaye Djily venez nombreux et vous savez El Hadj Cheikh ne fait pas des choses à part. Mm-hmm. Il aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et fait, il le fait à cœur, mm-hmm. il le fait à fond parce qu'il aime tout le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. di ngeen jox dig daje na ñëpp ñëw comme ni ngeen déggee yaat ma wax ko le 15 septembre ah na képp kuy munga munga ci àdduna fépp foo munti nekk gàmmu gàngoo ngénte prince rasul rahim mi ngoog mm-hmm. ziar bi aussi mi ngoog parce que tamit élection nu mu nga saw du def dara te xalaatul ay taalibeem. dëgg la kon yoo xam ne damay mm. gàmm te du ma ziar mais mm. ziar bi pour yéen nga seen sëriñ mu ngi noonu. Mm. yéen a ngi noonu incha allahu rabbi yaat ma. Mm-hmm. dañuy bàyyi nga tàggatoo. waaw macha allah di santaat yàlla bu baax a baax a baax di julliwaat ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant yàlla bu mu ñu defee ay ñu nekk ay jullit premièrement. waaw di santaat yàlla sunu borom aussi tamit bu mu ñu defee ñu nekk ay mule mule doon taalibe Thierno Moule saw ñu gis yàlla si moom gis yonente bi si moom ñu ngi sant yàlla suñu borom bu baax a baax ci teranga boobu mu muñ defal waaw ñëpp mënuñu doon mule mule nag mule mule yàlla suñu borom moom moo la koy def waaw yàlla suñu borom moom moo la koy def ñu ngi sant loolu yàlla ñu ngi siy sant yàlla bu baax a baax a baax waa di comme ni ma ko waxee rek di invité waat ñëpp rek waaw di ubbi porte yëpp waaw képp kuy jullit rek macha allah invité nañ la si bés bi waaw incha allah ci daaru laahi bi clinique bi waaw di ci woo taalibe yëpp aussi national international Sénégal bi Mauritanie ñëpp daal ñu ñu def teew waaw si sunu sëriñ macha allah waaw ànd ak moom ci bés bi nga xamante ni ci lay màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi ko El Hadj Thierno ak gàmmoom le 15 septembre incha allah mbokk yi di ngeen amaat beneen numéro ñu gën ko yaatal ci émission bi nga xamante ni moom nga ñu créer pour waajal euh, gàmmu El Hadj Thierno Moule Sow bu baax a baax a baax a baax mbokk yi beneen numéro sur la TMS TV ak El Hadj Thierno Moule Sow mhm.